alaykum bokki Sénégal man la mam Thier sen frère ma dellu si waat rek tay ci benn vidéo j'espère que du yàgg namoon na len di ziar ñep hein ah. di ci jital nak ziar bi Malathion TV Diko ko euh tay nak mom xam nga damay lancer appel quoi appel bi nak mang koy lancer vraiment suñu leader lako ko tuddee Ousmane Sonko bi nga xamé né tay vraiment mom la fi yalla tek mo léral yoon bi dal xam nga moo ñu jox une lueur d'espoir parce que politicien moom vraiment mun nañ ne depuis des années gisatuñ ko woon Sénégal est-ce que sax mës na fa am laay wax donc tey appel bi ma koy lancé li ci jëkk moom mooy euh, man pour man euh, Pastef war nañ mun a améliorer hein, système euh, communication bi quoi parce que pour man toog rek bu événement amee bu dara amee rek ñuy doog a gis sunu leader muy wax pour man dafa war a nekk sur le terrain quoi parce que loolu laa gis ne par exemple mën naa joxe sax cité ay nom mais jaru ko des yoo xamee ne par exemple dañ jëlee ay parti yoo xamee ne dañuy dem ci élection 7 pour cent tey ñu ngi leen di yóbbu ay 37 pour cent en Europe un peu partout te dara waralu ko boo seetee seen méthode de communication mooy mooy le terrain quoi bon baña nek ci terrain bi nak liko ko waral ñu ci bëri damay waxtaan ak sama yenn xarit yo xamé ne ci yenn panel yi dañuy wax ne Sonko bu nekké ci euh, régulièrement di xex si sur le terrain par exemple euh, sénégalais dañuy wax ne ki dafay politique rek mbala Sonko da ci profito mbala Sonko je crois que nit bu fekkee ne yow da ngay def euh, politique vraiment li wara jitu ci yow mom moy cynisme quoi cynisme nak mom man nga ko jëlé positif bu fekkee ne yow cynisme bi ngay wouté bo ci amé dara c'est juste pour nax nit ñi comme ni Macky Sall doon def mooy moom bi muy def tey bi muy def campagne électorale da doon dem sax si boutique atelier tailleur man sax am naa ci sam benn euh, xarit laay wax alaaji Moodu euh, euh, nee na ma un jour ma seeti ko mu ne ma siège bii nga toog de Macky bi muy wër réew mi fii la ñëwoon toog ma yóbbu ko ci biir dëkk bi muy ngapparu dëkk yooyu noonu ñëw toog foofu mel ni be bu réer toog ci buntu atelier am ah dem ci yenen <laughs> dem donc proximité quoi parce que li tax may wax lolu li tax Sonko méthodologie copier par force parce que sénégalais ne lu nek négativité mais li tax ma wax lolu moy man dama gëm procédé bobu dara gënu ko ci politique parce que bu vous né yow fixer sa communication sur Internet, parce que un télé Sénégal c'est rare ñu wax waxu à part bu déclaration déclarations télé yi xaw ci Sénégal ils n'ont pas accès à internet donc pour euh, joindre une euh, joindre tranche de population pour ñu la voter il faut trouver une stratégie stratégie bi nak campagne électorale bi man Sénégal la mais Sonko dëkk yu

dans dans des dans mën nañ mën nañ euh, fixer barème bi par exemple ne telle population bu fekké né ñun amon nañ fa par exemple entre 800 et 1000 votes ñoñu dañ fa wara dem parce que mun nañ ko euh, avant législative yi mbala avant comment dirais-je communal yi mën nañ fa yegg sax 2000 votes donc te votes yooyu noonu buñ ko xeeb et pour cela man damaa defoon benn remarque man bi ma nekkee Sénégal parfois dama daan dox ci mbedd mi te seeg ay jigéen yuy dem marché ma leen di arrêté parce que bon damaa socialise daal dama yàgg bëgg loolu di waxtaan ak nit ñi nii ci mbedd mi si kalandoo yi di waxtaan lu xew pour xam li xew ci dëkk bi daal. benn jigéen euh, ñaar ñu ànd ñu ne ma ñoom xamuñu sax kan mooy Sonko quoi donc Sénégal bari na nit ñoo xamee ne tey Ousmane Sonko. hein temps yi lañ ko commencé xam bala après élection yi donc ñun nak dañu wara continuer ci procédé bobu pour mom nit ñi gën ko xam té loolu pour mu am il faut que mu def des visites de proximité té loolu lu yomb lay doon parce que man j'en suis sûr que tay Sénégal euh, les jeunes de Pastef ils sont tellement bien organisés à travers des cellules des groupes euh, WhatsApp nek ci xam nga mu doon des centaines de jeunes qui xamé réunissent dañuy réunir sur des cadres de concertation nous, Sonko daf leen wara dem seeti ànd ak mu présent ñu présenter leen ci yi ñii seen baay yi nga xamee ne tey dañoo gëm ne Sénégal politiciens yëpp a yem ñii ñu yóbbu leen ci yenn euh, kër yi kër yi diine yi nit ñi gën leen xam xam nga ba dina tax sax ba yenn waxu dof yi ñuy wax naan Sonko bu faloo màggal dootul am Sonko bu bu faloo soirée dootul am Sénégal ah yooyu yëpp mu jeex Sénégal quoi te loolu pour mu am il faut que ñu def ah des visites de proximité foofu laa doon jëkkee deuxième bi li may wax tey moom mooy ci affaire euh, mbënd bi Sénégal tey vraiment c' est vraiment triste dama ciy profiter sax pour jaale ñi nga xame ne dañ cee ñàkk ay nit mu doon affaire bu triste mais ñun ñëpp Sénégal tey xam nañ ne ce qui Sénégal boo ko laajoon sax picc yi xam nañ ko mooy un système d' assainissement vraiment <laughs> digne d'un peuple euh, boo xamee ne vraiment ay humains ñoo fay dëkk ñoo fa dëkk boo demee euh, système assainissement bi amoon Dakar mooy bi fa colon yi defoon té tay ji normalement ak ni Dakar <laughs> yoko hein ah, ak bo xolé euh, euh niñu liggé dëkk bi avec les nouveaux projets là yi nga xamé né tay muy terre beeg lépp amna changement yo xamé né vraiment dañ ko def mais on n'a pas pris compte hein pour def un système euh, d'évacuation des eaux def un système d'assainissement bo xamé né vraiment day doon un un un réel projet waxuñu ay ay taf daba dabax xam nga da ngay ñëw nga comme dans les grandes villes tay Abuja par exemple euh, ñom en Afrique un des meilleurs systèmes d'assainissement moy da construire presque une ville souterrain xam souterrain autant pour moi si né ne hein? un système de maintenance bo xamé au niveau xamé né tay euh dañ koy surveiller avec des télécaméras mu am sax un des des un système boo xamee ne tey y a de xaw ma ko mën a expliquer de petits moyens de transport mu doon genre train lañ koy def raay mais day mel ni genre engin hein. les les les les les les les ingénieurs ak ñi nga xamee ne tey les ouvriers ñiy def maintenance bi si la ñuy jaar mu doon une ville souterraine boo xamee ne tey nit ñi ah dafay am ñoo xam ne dañuy toog sax ci bureau di surveiller toute Dakar toute la ville tey bu tuyoo tojee wakam ah duñ fa nekk sax di wër di tâtonner dinañ xam ne tuyau bi ndox mi mu ngi tojee <laughs> wakaam tel endroit précis xam nga ñun ñi dem fa liggéey ko mu pare mu am des télécaméras yoo xamee ne moom lañ koy surveiller xam nga lu xew danga koy gis mais loolu pour def ko xam ngeen ne du <laughs> du du <laughs> presque da nga naan sax métro booy gas la mais tolul ni métro yeggu fa mais dafa doon xaalis bu bëri. investissement def ci terre bi 750 milliards yoy may dégg buñ ko ci côté euh, un système d'évacuation des eaux bo hein, moyens yoy lañ ci euh, dépensé vraiment Sénégal ko quoi donc nañ li olof yi wax bay sa vraiment on restera toujours l'année prochaine hein, <laughs> chaque année ça va être la même chose on a besoin vraiment d'un projet bo xamee tay tey ah, état bi da koy génn mu don xaalis bu bari bo xamee des politiciens véreux duñ ko jël xaajoo mais dañ koy investir mais boko investiré ba paré nak li gëna am solo mom moy maintenance mais ñun Afrique nak ndeysaan yalla daf ñoo dogalé lolu mom maintenance mom moy zéro bo demoon tay euh, stade de l'amitié maa gis fofu ñuy wone ay images mais des choses yo xamee yow da nga nan li nu mën nekk stade bi nga xamee mom moy yaakaaru Sénégal ah mbëbës sax ko gën set salte lu ne ñu tour ko fa maintenant zéro avec ça ñu naan pays émergent mais pays émergent dafa am lu ko jiitu ñun Sénégal war nañ xalaat suñu bopp ci côté assainissement ak côté vraiment hygiène quoi c'est lamentable lamentable pour ñëwaat tamit ci ci côté mbënd bi Sénégal xam ngeen ñun dans nos villes et dans nos villages et partout hein li fa nous manquer manqué des espaces verts xam nga Sénégal Dakar ngay gis ay ay ay jardins yoo xamee ne matul sax 10 mètres ñu def faire un terrain basket ben ben qui mais gis dans les grandes villes là parce qu'il il faut nga créer dans une ville des zones tampons mais dégg que tout le monde dit, wax au oh, système d'évocation des eaux système d'évocation des eaux avec changement climatique ak nous yi wàcc ci dëkk bi ah, on a besoin des espaces verts mooy bu ñu fay def sax ay parc aquatique def fa ah, des des lacs artificiels yoo xamee ne tey vraiment ndox yi yenn yi sax euh, si yenn euh, canaux yi mun na fa jaare ñëw ci jardin yooyu mu nekk ci biir dëkk bi même Sandaga hein? <laughs> même biir Sandaga zone yooyu mën nañ ko fa def des rajaxe lépp def ko euh, jardin public ah def fa ay parc artificiel yoo xam ne ndox yi dafay daje ah mu am nag maintenance mais boo ko defee noonu may seen ni ndox yi def ndox yi di verte kenn du fa jaar mais ñun Afrique foofu la ñu toll quoi mais il faut que ñu euh, ñi ñi nga xam ne ñooy def urbanisation ville yi ñuy bàyyi des espaces verts vraiment pour les gens xam dafa am solo non seulement pour euh, système pollution bi di régénérer avec euh, l'oxygène dëkk bi di gën a am sax tuuti lu nit ñi di nooyee mais bu dul loolu sax aussi dafay don des zones tampon yo xamé né tay ndox bu fa waccé fofu nonu ci bir espace vert yooyu dafay téye lu bari dina sauver benen quartier bi nga xamé ne moo juxtaposé parc bi avant aussi yenn ndox yi bu ñëwé mëna yëm ci parc bi yoy yëpp ay système la yo xamé né tay dans les toutes les grandes villes du monde ah boo demee par exemple Londres bi nga xamee ma ville. mais amna parc yoo xamee ne billaay da nga fay daw ak auto sax gaay da nga fay ñëw pour pour pour nga mëna euh, visiter parc bi yëpp il faut nga jël un moyen de transport sinon yow mëna né ne <laughs> mën nga fa fanaan sax do paré nga dem dans les villes comme Kiev ay dëkk yoo xamee ne tey Sénégal moo leen ëppi mooy junniy yoon am ay parc yoo xamee ne gars yi am na benn parc bu ñaan parc Shevchenko mais dama fa dem temps yii di ko xool mais sama yaram dafa daw sax quoi nga naan xoolal ma lii rek xam donc ñun suñu il faut ñuy projeté ci côté boobu xam nga bañ a xalaat tout le temps xaalis xaalis africain yàlla daf ñoo binde pauvre ba nga xamee ne ñun defe nañ ne xaalis moom mooy lépp àdduna quoi xam nga te Sénégal nag moom yàlla eh, wóor na ma ne ki koy defar vraiment ils donnent un mec qui Khamenei, vraiment il s'en fout de l'argent quoi yem ci salaire hein. salaire. Euh, euh, revoir le système d'attribution de nos chefs d'État hein. muy a qui assemblée nationale muy euh, au conseil collectif local. affaire yoo xamee ne ñu ben solo yoy yeb ñu war ko a éliminer xam président de la république amul amul ça ça ça ça mais ça appelle même la révolte di gis un président bo xamé ne danaan ay milliards fonds politiques caisse noire hein euh, budget euh, présidence du Sénégal budget présidence bu France mais tu t'en rends compte Si waxé nak ñu ñun on nous sommes pauvres quoi parce que politiciens lool loolu la leen di naxé le Sénégalais appauvri Sénégal moyen yi mu am buñ ko suñ ko dans dans dans nos pays là billahi du am ben Sénégalais boy lab ci géej Mais mas nga dégg légui ay Rwandais ñu ne la Rwandais ñi ñi lab ci géej amna deux Rwandais bala trois Rwandais doto ko dégg parce que sen président bi ak luñ ko mëna waxal amna ñu nan dictateur la ak lu mënti dem mais bo démé nga visiter Rwanda mala nga seetaan les images def ay recherches sur Rwanda di nga xamné Rwanda benen affaire la té ñom dañoo am guerre civile bu yagul dé même pas 20 <laughs> ans guerre civile mo fa am ñu rayanté ba tëdd ci ñak bi xam nga xey tay sen dëkk mën loolu mom moy un pays émergent bo xolé auto sen auto policier yi rek gaañ des centaines des voitures yo xamné ils ont rien à envier aux <laughs> aux américains à la police américaine hein ñun Sénégal des universités des centres de recherche yo xamee ne tey yow sa yaram sax day daw sokoy koy pourquoi Sénégal mënul am lolu te pourtant amna amna ñu moyens mais li ñu am yeup hein ah, ben ay non mais incroyable quoi des polici des politiciens yo xamee ne yow do xam sax no leen di tuddé quoi xam nga nit ñoo xamee ne dañoo xif toute leur vie hein Sénégal hein, espace vert sax mënatu fa am lu fa xaw ak xam ni rek policiers euh, politiciens ñew jël tabax mais c'est triste quoi jéem leen ngeen xolaat seen bopp quand même Bye c'est trop trop trop vilain yeureum leen sen population yeureum yërëm leen nit ñi ngeen xamé ñom ngeen di dëkkal xam nga tay tay te ñom ñëpp nak sen xaalis yi yëpp milliards ni sacc sàcc yëpp boo taseeg ñoom Europe xam nga li ñuy lekk ay McDonald xam nga ay añ 15 euros mënu ko passé KFC loloy sen nos dé ah bo démé xana Idriss Seck mo ci dem Saint John's Gain di dépasser ay nuité peut-être 5000 euros ak yooyu bon sax ay milliards yi mu sacc xam na ni mu koy lekkee ah boo jëlee yeneen politiciens ya ah, ñoom Macky Sall nii ay boo gisee nu mu toll nga xam ne ay hamburger lay lekk ay McDonald xam ay affaire yu fay fayda loolu dafa jot lu si lu ci uti caisse noire huit milliards soo amee salaire sax dix millions gars yi gis nga boo demee Europe McDonald yooyu yëpp danga koy lekk mën nga lekk tout li ñu togg ci journaux journal ci journée bi te sa xaalis du jeex delloo si leen seen xel bàyyi fofu laa yem xam nga maa leen di ziar di ziar malation ah di jàpp ci télé bi di la wax ne ñu gën a góorgóorlu rek informer population bi di wax Sonko ak waa Pastef vraiment ñu gën a réfléchir ci stratégie yi nga xam ne dañ ko war a teg wàcc sur le terrain bañ a may dara Macky Sall di ko marqué à la culotte vraiment buñ ko defee fii bala communal bala présidentiel vraiment suñu 15 pour cent yi mën na dem sax ba doon 30 pour cent ak nag ñu continuer di xeexaat ba baa ñuy yegg 50 pour cent te mun na nekk bu gars yi bu kenn découragé na ñëpp jàpp maa ngi leen di ziar yéen ñëpp. Necklace y ya.